ok du lu ñu gënaloon ci bilan bi mu nekk professeur professeur Amsatou Sow Sidibé tey ku la xam euh, xam na le ku yàgg xeex ci wax wàllu àq ak yelleef euh, tey nag nga gis ne euh, am na ci ay opposants yoo xam ne nii ñu jàpp leen kaso ñi ñu téye leen ñi nga xamante ne nii ñu ñu ñu bloqué leen ci affaire parrainage yow lan ngay wax ci loolu ak lu tax yow ñu ñu retiré. sa candidat lu tax nekkuloo euh, candidat ci élection présidentielle yi. damay commencer par bu mujj bi nañu libeere xale yi ñu ja yi ñu denc man dama responsable d'une commission la commission juridique et sociale ci c cinq bi nee nañ ma naa dem saytu affaire xale yi nga xam ne ñu nga kaso ñeneen ñi ñu nga kaso man dem naa dikk démb ànd ak un groupe une délégation pour dem xooli xale yi euh, wax ak ñoom tuuti. mais yooyu amul njariñ nañu baax xale yi instauré euh, climat climat ñu ñu yëg ni Sénégal nekkuñu fi pour bund xataal nit ñi pour sonal nit ñi pour tiital nit ñi parce que sénégalais xamul lool ta boo ko xamul doo ko mën a supporter kon boog ku ci nekk ci ñun na xam la muy def xale yi nañ leen génne seen place du foofu nañ leen bàyyi ñu dem lan la boo meree mën nga manifester nga bañ a yàq nag bañ a gaañ mais mën nga manifester surtout que xale yi man d'accorduma ci condition yi ñu leen jëlee yóbbu leen dikk quatre heures du matin cinq heures du kenn du dem yee nit di ko fa jëlee kenn du ko def kenn amul droit def ko premièrement deuxièmement ñoom dañu am problème ak nit mais ñu jàpp leen ñoom yóbbu leen luñ ci xam lu tax ñuy jël leen tax te dara leerul ensuite ka demoon buntu euh, euh, bokk gis-gis ba di leen photographier lu tax mu ñëw fa du loolu may provocation ñoom ñu nga buntu bokk gis-gis parce que foofu dafa amoon conférence de presse ñu bëgg dem di leen fa photo mais yooyu provocation la lan la fay wuti nañu bàyyi nit ñi tranquille xale yooyu mani nañ leen génne seen place de foofu nañu leen fa génne jàmm ne ñooy